baa ngi nii may si waaye du ma ko ci wax bi fi ñëw laa koy wax sama ndëkk si comme wóorum ñoom ñu waree baax weer bi fi ñëw. <laughs> waaw yow mère da ngay damm lu koy def ci biir kër jaamu doonu yoo. li tey boo dee fii sama kër jëkkër nu ma neexaat bi nekkee.

moo xam ne nga yóbbaale ak sa tën du ko lekk du ko naan. yaa ko fa maanaam ci loo xam ne du dara xam naa nga sa yaay ma tooñ bàyyi ma tooñ man sama nijaay sama nijaay laay jàngee damay woor de man ko ren gi ngay waajal naa ko baax sax ñu bàyyi. ko ren gi waajal naa ko bu baax dan dinaa woor ya bu baax dinaa woor incha allah so jom bariwul dinaa woor gisoo ñu a weer bi xool naa ko waaye feeñul de waaw feeñul de gisuma ko de hmm. te man sax dama laa bañoon wax rek waaye ni yaay hmm. dégg naa ci rajo Barabara FM Barabara FM <laughs> ñu ne wér day gaamil du feeñ feeñugul de hmm. waaw day gaamil wér day gaamil waaw baax na kon ñu séntu ko yàlla baax na fu may dem nga topp yaa xam ne may topp yow mer du amoo loo wax da nga xam la ma tax wóoru da nga xam la ma tax wóoru xam lu la mën di daal rek mën nga ko mën nga koo lijjatee ca kër ga moo di yow ñàkk nga jom sa gimi nga xëy na maa tay maa tay nag ma am gàcce doo nga koy wax yow soof nga torop mayoo jàng sa kër ga mayoo ko ci mbedd mi. maa tey mun ma wóor wóor na force yàlla deful force. dimbali force boobu da nga dee da ngaa ñàkk jom. maa tey.